jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu àndaat ak Balla de 2 de Gaye 2 ginnaaw ba Boy Niang génnee def open de presse yëkkati ay kàddu moom nag dafa mel ne say qualité ak ni nga mel da koo xaw a euh, di loo ñu xool yow lan nga ciy wax waaw man ni may wax rek xam nga àdduna moom c'est-à-dire gis nga wax sa mbaaxu waaye yàqul dara sa mbaax man dama ko may sens ñaari defet la tegale maa ko may sens amul lépp loo xamante ne rek bu may wax mom bu may wax dama waxal lu baax ak lu rafet mom dafa wara war jox ma cër bari na fi mbeur bu ne mais li jam solo xam nga moy lan ku ñu may sa sans ngay régler tax yem da xam la dañ laa may sans mais nak Balla gay de seen digënté dafa melni ne palmarès moo leen boole de ak ay victoire mo leen boole. palmarès boole wuñ victoire boole wuñ kasse boole wuñ xam nga la mo ñu boole bëgg bëgg amateur mo ñu boole mais du dara la mo ñu boole. Hmm. amul lenn mais Balla Gaye de yow nan nga mën a def ba Boy nya jox la li nga moom jox la sa cër respecté la nan nga mën a def non soxlawu ma mu ko moom bu ma respecté mais bu subaa dama respecté hmm. loolu maa koy liggéey maa koy jëf mais nag yow Boy nya ki ngay bëreel Balla Gaye 2 mii ndaanaan la de ndaanaan kullu fadlin mooy Balla de. 2 ndaanaan la waaw ndaanaan bu dofee ndaanaan na koy faj ndaanaan bu dofee ndaanaan na koy faj mbër bu ne mbër a koy daan amul benn problème bala moom xam ne ne am na adversaire waaw am na am na booy bu décidé bi laay walaay bi laay walaay dañuy jëflante de dañuy jëflante bu baax a baax incha allahu rabi. mais bu suur baa booy ñaa day bëre wala day xeex lan la booy ñaa di indi day bëre wala dañuy woote. lépp laay def lu may def nekkul yow laa koy wax nekkul presse bi laa koy wax loolu sama affaire bu bopp la comprendre nga mais lépp laay def nga xam ne moom lu muy indi fekk ko fi lu muy indiwul mi ngi fi incha allahu rabi. mais booy ñaa ñu seetlu ne ba combat bi taxawee ba léegi da nga am engagement lan moo ko waral. engagement nekul kenn moko duggal ci man li ngay wax non naan ko gis ci man ba combat bi commencé ba léegi nekul kenn moko duggal ci man lolou sama yëfu bop la comme kon lolou am mais dafa melni sa diggante ak balagay de dafa am en sa diggante ak balagay de dafa melni dafa am en no amul en no amul en wa comme ni ko waxee rek amul en ya ngi dégg ba bal amul en lepp la am du wessu la am waaw bo gi dama wax lolou moy mom lu mu amul de bala lu foo amul bu baax baax booy waaj na bu baax a baax incha allah te nañ laare maa moom nañ laare bu ñu laare pare moom dina xam kan mooy Boy Niang incha